fii nag di eh, dimanche si suba la Bakoteh fu ñu daal di sandi ñax la ñu wax ne nag la safara daal di jóg eh, ñu ko daal di taal rek moo di ne eh, ñetti xale jóge ko fële nag si Sukuta wax nañ ne nag kenn nag jàpp nañ ko te moom mu ngi mu ngi leen a daal di dimbale si investigation kii nag di Talib Ahmed benn Souda di mayor moom nag joxoñ na ñii di nga xam nag moo di fire ak rescue service moom sa wax na ne ñetti xale yi ñu daal di ju taal safara sa lii nii di sànnikaay mbalit bii nii ba tax na watchman bu fa nekk moo daal di gis mbir mi mu daal di o lii nii di director of service uh, kooku o municipal uh, police uh, commissioner ñu daal di o ñi di fire service yi waaye nag wax nañ ne balaa ñooñu nag di agsi foofu noonu fekk safara bi am na doole a a fu bari bëri nag daal dina taal wax na ne nag tey jii nii bu ma nekk di wax ak yéen ah, nii ah, lii nag di ah, safara bi fayangut waaye nag ñii ni di faykat yi safara bi di fire service yi oo nañ leen waaye ñoom lu ñu wax am moo di ne ñoom seen machines yi dañ daal di màgget te ñoom seen machines yi nekkul di dox ba loolu moo tax nag ñoom mënuñoo ñëw dimbale pour ñu fay safara bi nii tey. te nag ñu daal di ko laajte lii di ab pétrole station bu nekk boori ab sandikaay am mbalit boobu noonu wax na ne moom moom wax na ak ministre bu séntu wàllu mbir boobu noonu te kooku nag wax na ko ne wax na ak nitami pour ñu daal di gis ne loolu bu fa nekk. lii nag nekkul njëlbéen yoon a lii nii di ah, funde sànni mbalit ah, mu daal di taal ah, daaw nag façon bi nag daal na am foofu noonu be tax na nag kansul bi ñu ne ñoom ñu ngi daal di def seen kéemtalaay kattan pour daal di gis ne nag mbir mi bum fi amati Paradise TV News Mamadou Koli.